noonu rek la fa tabarakallah amul dara lu ci jàngat amul dara lu nag rek moom lan am bi may ñëw ñetti xaaj rek laa ko def tudd magum suñu borom bi allahu akbar sant ko ci boole gi ñu boole sëriñ bi sant sëriñ bi ci tëfër bu rëy am ci moom ñett yooyu ñetti baat yooyu laa ñu wax allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf jërëjëf feex na ñett ñaar ñaar tubaab yi moom laa doon wax te ba ni ma àgg loolu rek laa leen di tontu nag seen seen taxawaay bi taxawaay bi taxawaay bi tabaarakallah la ko daal ci cosaan la ba fi ba ba sëriñ bi na si ngeen ko na si mu rafet dara desul fa tabaarakallah jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant gën a sant suñu borom mi leen bind te boole ñoom sëriñ bi yéen gën a sant sëriñ bi. mi ngi suñu lépp tey ak di leen gën a sant seen taxawaay seen yitte seen yéene seen pësteef seen bëgg seen cofeel ñoo ngi leen di sant di gërëm bu baax ndax loolu yàlla leen ko defal waaye yéene ko jëfee ba ma tëkk jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ngi ye noo ngi leen di seereel yeesal suñu suñu yeesal suñu jaayante sëriñ noo gënoon ñoo ngi leen koy seereel di leen yeeseel di leen seereel ne waxtu bu ne ñoo ngi fas yéene fedd di suñu laxasaay fas yéene sax ci tàkk ci jaamu yàlla lëggee lëggéeyale ko sëriñ bi ànd ko yéen jaamu yàlla lëggéeyale ko sëriñ bi boole ko ci la la la dese ci jaamu yàlla te sunu bàyyee ko. nu boole nu boole jaamu yàlla gi nga xam ne moo nu fenn di lanu ca dese ci lu baax lépp nu fasal ci sëriñ bi boole jaamu yàlla ga ak jëf ja liggéey ba delloo ko ko lana ca am lépp nu nu nu nu jébbalaat ko ko loolu mooy nu sax dàkk ci jaamu yàlla ndax moo nu fenn waaye nu fasal ci sëriñ bi defal ko ko mu dul liggéeyam boole ko lan dese woon nga xam ne suñ yàlla nu tawfeex yàlla nu dimbali ban man koo def ci lu baax ak lu mu mën a doon nu boole lépp jëppal sëriñ bi doy lu sëkk suñ digganteeg suñu borom ci biir ak ci biti tey àggal nun ñaari ci ñaari diggante rek lan nekk ci ñaari diggante rek lan nekk muy wéetal yàlla wéetal yàlla mooy def mooy digg la ca dolliku mooy doonul sëñ bi digg ma boromam doy noonu sëkk doy noonu sëkk bu dee ci saayir bu dee ci waayir lu ma ta fàggu fàggul nanu ko tey ak ëllëg lu ma ta lu mën lu ko te kon dara desi wunu lu dul sax ci jaamu yàlla ak liggéeyal ko sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax a baax a baax di leen sant bu baax a baax a baax ndax lu nu bëggoon lu fekk nañ ko ci yéen lu nu lu yi may wax li ma ci xam ak li ma ci yéene ak li ci bëgg lépp fekk nañ ko ci yéen fekk ci yéen kon kon noo gënu nooyi yàlla yàlla na sunu moom gën a dooleel sunu bi yàlla noonu sëriñ bi gën a gën a gën a gën a boppam yàlla noonu sëriñ bi gën a wombatal boppam te gàttal noonu ngërëm moom tey ak loolu rek mooy wax mooy ñaan jërë ngeen jëf kon naa ko yemele foofu jërë ngeen jëf waaw sant nañ nan sant nan sant rek nan sant rek sa sax dàkk diggante sant ak soññ suñu bopp daayima sant sax dàkk ci sant ak soññ suñu bopp daay ñaari diggante ñaari jéggante yu jëkk ya mooy wéetal yàlla doy la sëriñ bi di ca tegu mooy sax dàkk ci sant tey sax dàkk soñ soñ suñu bopp soñ soñ suñu bopp geen ngeen jëf